asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 22 novembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi tey nag sunu lamb fa la nuy xëy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb moom ka mu xëyee wala fa mu xëy ñëw moo di ca Ama Baldé la xëy yëglikaay bi nag nee na Ama day li ko année balance jural metti na trop kaay bi nag boo bëggee dégg-dégg daal maanaam ña ko waroon ñenn ñi maanaam fi mu nekk nii des leen a gisul ak ay bët cummukaay ba itam mu mel ni ki ak tasaaroo am na ca te yëglikaay bi nee na li ko ko jural moo di année balance violence leneen la ca des mooy ama ci boppam gis ko këram itam lu jafe-jafe la moo tax sunu lam ne ne fi nekk day ama fa mu nekk sax ngir xam ko lu jafe-jafe la te loolu lépp li ko ko yóbbee moo di année balance ay xaritam yi nga xam ne daal ñoo di ay ami d'enfance am wala ñamu fa wandool itam fi mu nekk nii ngir ñu gis seen waajooju jafe na leen lool ba tey sunu làmb moo xëy ñëw di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit ci diggante Guédiawaye ak Pikine lay dox mu di boo xam ne dafa mel ni rakk ak mag la ndax nag yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wan ñu wàcc ba ca suuf jàkkaarloog Sa ak Boy Niang Sa di takkal gàll di takkal ki nga xam ne moo di Balla gàllaaj yëg li ne nag li leer ba leer daal laa mel ni liy xeeñ daal moo di dër bi ci diggante gox boobu wala boog gox yooyu Pikine Géejawaay waaye yëg li kaay bi na daal balaa looloo am moo xam Sa Thiès ak Eumeu Sène la wala Boy Niang ak Balla fa ñu jot a jaar moom yëg bi na 3-0 la leen Pikine yóbbu lagu maanaam trois 0 daal Pikine defagu na ko ñi nga xam ne ñoo di waa Géejawaay yëg bi moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki keneen koo xam ne ba tey mbir moom nga cay wax muy dégool di bàyyi booy ñang moom nag la mu xamle daal nee na li leer ba leer li sénégalais yi bëgg nanu ko wax te xam ko mooy diggante doomam ji nga xam ne moo di booy ñang ak Balla Gaye numéro 2 la lion de Guédiawaye moom daal moom dégool jàpp na ne fi mu nekk nii nit ñëpp loolu la ñuy laaj ñii moom lañ leen di laaj daa mel ni mooy ay ndam muy ñeenti mbër yoo xam ne écurie Fass la ñu bokk moo tax kaay bi jàpp ne ñeenti tigre yi daal am nañuy combat war a wàaj muy Papa Sow digganteem ak Seta Pape Ndoy Niass Serigne Ndiaye numéro 2 ak ki nga xam ne moo di Libidor mu mel ni ki daal kon foofu moom yëglikaay bi ñëw na fa ci biir Fass ak seen ñeenti mbër yooyu nga xam ne ñoo war a njëkk a ci géew bi bëre ak la leen di xaar ak fa nga xam ne tamit foo la ñu jëm leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi da caa ñëw muy Franc mi nga xam ne moom huit combat la def huit victoire moo tax yëglikaay bi di sunu lamb mu ngay laaj Franc kan moo ko war a mën a arrêté yëglikaay bi di sunu lamb xëy ñëw di nu wax loolu keneen koo xam ne nii moom dafa tëgg làmb muy sëñ Modou Ñang dimanche ji ñu jëm mu war a ubbi làmb ji ci diggante Petit Baboy ak dubul BMW sëñ Modou yemu ca ndax nag yëglikaay bi xam nañu ne day suur na lamba maanaam premier janvier day sëñ Modou teg na ca loxo war caa tëgg diggante Mori Cargo ak ak ki nga xam ne nii moo di Cheikh Super Jamono sunu làmb xëy wax ñu loolu le 24 novembre itam jàpp leen ko muy dimanche ji ñu jëm fa nga xam ne mooy stade municipal lu Mbour de sunu làmb mu ñuy xam ne li leer ba leer làmb ju neexit nar na faa am ak Sidi Jaxate ki nga xam ne nii day moo di Sil bu Sali ak Lion Ray ñoom ñaar la boole ñu nar faa jàkkaarloo jàkkaarloo boo xam ne bu nar a tar lay doon leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk ca Leewtoo TV muy ba raay mu nga xëy di wax la xam ne daal ci Ama ba leer rek moom jàpp combat boo xam ne yow boo ko daanee da ngay nekk roi des arènes ba pare lam la mën a jural bëri na te yaa soxla woon jàpp na ne kon ama liñ ko fay war na koo sax mën a jël bëree nee na it bu ko neexee am na droit laaj lu ko neex diggante ak seen ak Sa Thiès moom raay na na loolu di ko wax sax yàq ay wax la ak bëgg a wàcce maanaam gëdd ak Eumeu Sène ndax Eumeu seen li mu def ci làmb daan Balla Gaye ñaari yoon moom jàpp na ne ku koy wax waxi ki nga xam ne nii day moo di Sa Thiès waxi làmb taxulaa jóg raay ba moo xëy ba tey di wax loolu fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV waaye bu ñu demee ca Leewtoo point net tamit mu mel ni kii di leer ba leer daal jàppal dimanche ji ñu jëm itam làmbi simple ji moom nar naa yëngu ndax gaal gi nag jàk moo fa jëmati deux millions cinq cent Leewtoo point net moo xëy ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko maanaam sunu lamb door bi yëglikaay bi ñëw na ci quatrième écurie ba nga xam ne moo nekk ca ñeenteeli place ba moom sunu lamb kam ñu fa wan nag wala ñoom ñu mooy waa jàmm gën si ñoo nekk ca ñeenteeli place ba nañu ki nga xam ne moo di Félix Mbay Xaada Lis Njaago Sidi jàmm gën su lay gaynde ak ki nga xam ne moo di doomu jàmm gën mu mel ni ki daal la ma waxoon rek mbir mi moom du écurie bu yàgg fi wala écurie bu fi ñëw tey liggéey la te ku liggéey itam yaakaar naa mën naa am nga am la nga bëgg ndax nag jàmm gën si kam mbaaw yàggaguñ fi waaye sunu làmb door bi ñoom ñoo ne ca ñeenteeli place ba loolu leer na nàññ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 Amine Babacar tey nag ñu ñëw ak sunu laam sunu laam dafa xëy euh, dalal ki nga xam ni mooy Ama Baldé naan Ama Baldé daal euh, conséquence ci saison blanche yi mooy moom si boppam dafa jaxasoo si euh, tamit ci mukaayam si boppam dafa dafa tas na daal ci mukaayam tas na loolu mooy conséquence saison blanche yi nga xam ne def na ko daaw fan sami tamit ni nga koy seet ndax nekkul këram kenn xamul fan la nekk. waaw loolu daal moom la sunu làmb xëy tey maanaam li ko année balance bi jural maanaam kon boo bëggee dëgg-dëgg du loo xam ne kon njariñ la ndax nag. ama ku ko xam-xam kook entourage am xam kook ay xaritam guddeeg bëccëg ñuy nekk ah bu defee année balance nag tax ba jaxasoo am fa ñii gisatuñ leen cumukaay ba tas ay xaritam yi nga xam ne ñooy ay ami d'enfance am mënatuñ kaa gis ah loolu kon moo lay wan ne kon daa mel kon année balance baaxul xam ne balance moom baaxul ci mbër parce que mbër man li ma siy wax rek soo yoree sooy bëree moom mbër nga waaye boo toogee bëree too doo mbër amaa nag année balance bi dama naan su amee ci benn côté am na ci loo xam ne am na ci responsabilité mook entourage am parce que yaakaar naa proposé nañ ko daaw combat digganteem ak Siteu te yaakaar naa bi ñu ko ko proposé lañ ko fayoon itam yaakaar naa est ce que bëree gu ñu toll noonu ci kase parce que la ñu gëstu woon ba xam ko mooy kan fayoon nañ ko lu toll ci 70 millions defe naa est-ce que gënul woon def année blanche parce que sportif nga fay nañ la kase lii sa liggéey la pour man daal vraiment yenn année blanche yi moom di ko def jar na moytu parce que comme yow dañ lay démarché am nga sensu ñu lay démarché di la fay yenn kase yi moom war ngay xoolaat bu baax a baax a baax balaa ngay def année blanche ndax année blanche ci koo xam ne day kumba faal da yore kër yore responsable lu baree baree bari ñu bëri yaakaar la defe naa année blanche du ci yow waaye nag xëy na itam jaamu la yàlla ak yàlla moo tuddoon na daaw du Babacar nag ñu ñëw si nga xam ne mooy tendance ren si seen si année bi si si si làmb ji muy grand contre petit neen daal grand contre petit ñu koy gën a dund mooy derby Guédiawaye ak Pikine parce que ñoom lu ñu gis mooy Eumeu Sène ak Sa Thiès wala boog Balla Gaye Boy Niang 2 waaw mu mel ni kon foofu fi mu nekk nii coow la bëri na fa trop ci diggante Eumeu Euh, ak Sa booy ñan Niang Balla waaw loolu moom baaxaar naa ne diggante Pikine ak peeg Guédiawaye fi mu nekk nii moom xam nga bu jëkkoon Pikine ak Fass derby bi fa la gënoon a tare mais léegi daa mel ni derby bi mu ngi nekk diggante Guédiawaye ak Pikine fa la gën a métte actuellement loolu nag li ko waral mooy mag ña fa nekk ak xale yi ñëw ah yooyu nag bu dee mën na am bu dee ay combat yu war a mën a am la promoteur yaa ngi xool amateur bi ñu ngi xool waaye li ma xam daal mooy ñoom xale yooyu nga xam ne dañoo bëgg bëri mag ñooñu moo xam Sa Thiès ak la bu ñu teg seen bët kese kese kese kese ci ëmma seen ak Balla Gaye parce que am na ñeneen adversaire potentiel su dul ñooñu ndax Sa Thiès tey damaa yaakaar ne digganteem ak Garga Mbossé yaa ngi dégg wala diggante mag ki nga xam ne mooy Yékini senior lamb gënu koo jaadu adversaire yooyu booy Niang tamit diggante mag Tapha Tine am ak guy gi même loolu parce que dafa daanoon guy gi guy gi ñëwaat na ci disposition wu war a am revanche que daan na Siteu kon yaakaar naa loolu tamit lu war a mën a nekk la terewul nag su neexee mag ñooñu ñu may leen sens mais da leen di neex day neex Balla day neex Eumeu waaye su leen neexul moom jàppal ne combat du am ñi nga xam ne ñoom am nañu combat ba mu doy mooy waa écurie Fass parce nee nañu ci saison bi rek euh, saison bi ubbeegul mooy amagum nañu ñeenti mbër yoo xam ne promoteur yi tëgg nañ leen muy Papa Sow Pape Ndoye Tafa Gueye ak Serigne Ndiaye waaw loolu day ça veut dire que moo lay wan ne kon dañu bokk ci làmb rek parce que mbir moom wala ne ko bokk ci gétt gi naan ci meew mi écurie nag comme ni ñu ko bu nekk jaar fa tey bu ñu xëyee saison bi commencé gul wala bëreeguñu saison bi ñu am ñeenti combat loolu moo lay wan ne kon promoteur yi tamit bàyyi nañ leen xel ah kon dafa doon lu yomb ndax Pape Ndoye xale lay bëreel ni moom muy Jackson ki nga xam ne mooy Papa Sow itam may benn xale sens muy Siteu da du ma ko sax tuddee may sens ndax Siteu daa yegg ci ñoom waaw te ku bëree ba ñëw ci yow ëppletoo ko dara si làmb ëppoo ko kase ëppoo ko mbooloo bu ñu nee may sens itam xanaa pour rafetal la rek waaw xëy na nag bu ñuy wax may sens bi li nga ko jiitoo ci làmb foofu la ñu mën a waxee ak li nga ko màgg ci ci expérience foofu la ñu mën a waxee Tapha Guèye itam moom mën nañ ne dafa may Abou Niasse sens te loolu kenn du ko mën a weddi ndax foofa moom loola moo fa am boo xoolee palmarès yi xool expérience yeeg lépp lépp bokkuñu sax ay palmarès yaa ngi dégg mais tamit làmb noonu da ngay talal xale loxo mu yéeg Libidoor ak Serigne Ndiaye de tamit làmb ju jaadoo jaadul ndax Libidoor ku ne moom la daan pakala bu lamsaar ak xeex bu métti ba ci amoon Serigne Ndiaye do tamit lutte avec frappe bi yaakaar naa bu ci amee defet benn defet la ci amagu mooy digganteem ak Zambala waaw Babacar nañ laan dégg suñu papa Bécaye di nu koy nuyu mu laam dafa xëy ne kii arrêtera Franc ndax si huit combats la am huit victoire Babacar waaw kii arrêtera Franc ah waaw loolu moom nañu yónni yàgg parce su ma juumalee Franc actuellement am na combat diggante ma ki nga xam ne moom mooy bébé Saloum kon nag ñu ciy nuyuwaat suñu rakk jamaykee ba nga xam moo tëgg combat boobu kon xëy na yaakaar naa ne bu fekkee ku ko war a arrêté la kon léegi xam nga fu ñuy demam dañuy dem ci bébé Saloum ba moom moo koy arrêté wala boog da koy bàyyi mu continuer di pagaay nam ko neexee. waaw kanam su ñu sunu laam dañuy dem fi nga xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net moom li ñuy xamal ne ki nga xam ne mooy Balla Gaye numéro 2 noonu laaj Euh, ñëwagul woon ba léegi jaale ji nee ñi nag démb dem na jaale ki nga xam ne mooy magam muy Bombardier waaw loolu lu rafet la ba tey rek comme ni ko ñëpp defee ndax Balla Gaye yaakaar naa ne bëri naag Bombardier mais defe itam am na lu bëri loo xam ne ni seq nañ ko ci loo xam ne nii euh, lees xam la yaa ngi dégg te loolu li ko waral mooy sport la def yaa ngi dégg sport bi bu ngeen tolloo ci waru def ngeen koy def adversité bi mais nag su jeexee ay nit normal da ngeen di dund en tant que nit ak nit su ñàkkee frère comme ni ko ñëpp defee dem jaale ji defe naa loolu duñ mën a def lu dul rek rafetlu ko comme yaakaar naa làmb ji daal dama foog ne exemple lañ ci réew mi parce que ku ne xam na ne ña dem kër Bombardier ñëpp ci ay mbër ku ci ne ñii bëri na ak ñoom daan ñii daan ko ña ca des bëreegut ak ñoom di ay adversaire am mais téréwul ba naqar ba amee dañoo ñëw bokk ko ak moom te loolu defe naa am na lu muy jàngale kon defe naa loolu politiciens yeeg keneen ku mën a doon war nga ci jàngate lu bare bare bay ñu bàyyi di waxante lu ñaaw ak di ko defante ak di ko jéemalante te yenente jàmm suñu waree seq liggéey nag nañ ko seq rafetal ko teg ko ci yoon surtout adversité bi rafetal ko daf ci am solo trop bañ ko def mbirum noonu Babacar Leewtoo point aussi bu ñuy xamal ne week bi moom dina dina jeex trop si wàllum làmb euh, bu ñu njëkk commencé mooy ki nga xam ne mooy Serigne Modou Niang mooy ubbi euh, saison bi depuis juróomi at moom mooy moom mooy champion ouverture saison bi dina tëgg fee nga xam ne mooy Iba Mar Diop BMX ak Petit dina am aussi lutte simple tamit Babacar diggante euh, Adrien Senghor fi nga xam ne Elisabeth moo fa teg million Jackson moom mi ngi terrain gal teg fa 2 millions 500 Babacar loolu yëpp mooy xëy si week bi ak sans compte tamit open press bi nga xam ne moom mooy am bu Maama Lamine. waaw loolu moo lay wan ne kon weekend bi sax te am na leneen loo fàtte ndax ki nga xam ne moom mooy dimanche bu dee mooy le 24 novembre Sidi Diakhaté xam nga ko le promoteur de mu nga fa nga xam ne moom mooy ca Mbour fa lay tëggee Sile bu Sali ak Lion Rail foofu la koy tëggee kon tamit sëñ Modou Niang war a ñëw moom itamit dimanche jan yi dégg ci diggante Petit Baboy ak BMW ba pare itam mu moo ci des mooy a jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin ki nga xam ne moom la sens am nekk ci combat yi yàlla na gañe ki ñàkk itam damay jàpp ne su keroogee daa jàpp nañ sport la rek day dem defarajuwaat dellu si Babacar nu jeexalee ak Leewtoo TV Leewtoo TV demoon na seeti ki nga xam ne mooy Rayba bokk ci staff Luc Nicolas moom nag euh, mu musique ak yow waxtaan bu yaatu ñëw na si combat bi nga xam ne mooy diggante Ama Baldé ak Modou Lo ñëw na aussi ci combat ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ak euh, Sa Thiès bi ñuy laam comme lu ko Sa wax rek nee na moom lu mu am daal bu rek Eumeu moo ko gënal moom nee na nag loolu combat boobu d'accord ci ndax Eumeu Sène mënul daan ki nga xam ne mooy magam ñaari yoon ñëw nag bugg wàcc pour bu ki nga xam ne mooy Sa Thiès nee na daal bu kenn dévaloriser ki nga xam ne mooy euh, Eumeu Sène mi ngi si làmb ji dem bokk na si VIP yi Babacar waaw Ndeye am na solo traay ba moom moo koy wax loolu loolu nag li ñu ci mën a jàngate mooy kenn rek kiy wax xam-xamu làmb lay waxee mais euh, ñu bañ a jàpp que ne pour man day wax ngir am fu mu farak ku mu faralul mais l'essentiel que li nekk mooy Ama Baldé ak Modou Lô moom wax nañ ci waxati ci waxati ci moom nag li mu gis mooy aspect sportif bi foofu la waxee parce que jàpp na ne Ama su jëlee Modou tey moom moo ci ëpp avantage parce que bu ko daanee nekk roi des arènes te itam fi mu nekk nii ñëpp mën a jot ci Modou ngir bëre ak moom moo tax mu jàpp ne moom bu ñu ko fayoon sax ba 60 millions war na ko mën a bëre Sa Thiès nag daa jàpp ne diggante mag Modou wala diggante mag Eumeu du ko du jàppul ne làmb ju jaadu la parce dafa jàpp ne ku koy wax yaa ngi dévaloriser ki nga xam ne mooy Eumeu Sène waaw loolu tamit euh, mënees na ko koo nangul waaye itam terewul que ñu jàpp ñu nangu leen itam que ni xale moom à chaque instant su bëggee rek mag lay bëgg a dëkk tey gis nañ ni Boy Niang ni ni mu bëggee euh, Balla ngi dégg Ama bëggee woon ko muuru lu mel noonu lay bëgg guy gi bëgg na ko keneen bëgg na ko keneen bëgg na ko mais du a nekk parce ñoom xale yooyu dama la ma waxoon ci début fee rek laa lay waxaat leen mag ñooñu nanguta jël tamit nañu bëri ci seen biir waaw. Babacar ak sa kàddu yoon leen tàggoo di leen jox dig daje lundi incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astang ne dèjà di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallou Rokhaya ak ki nga xam ne mooy Moussa di nuyu Mbaye Sey depuis Ouest Foire di nuyu ki nga xam ne mooy Zey Bombardier di nuyu ki nga xam ne aussi mooy Abdou Gueye depuis les États-Unis doomu ndey Siteu Babacar. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Euh, nuyoo bi nag tey fi ñu koy njëkkee mooy internet yi rek amuñu seen fay ñuy seetaan à travers le monde fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yokk rawatina fans club Leewtoo bi ak fans club Babacar bi duma leen fàtte mi di nuyu ki nga xam ne tamit mooy Saliou Khoule bu Zik FM maa ngi koy di ko jaalewaat yaayam bu baax a baax a baax waaw ndax nit ki Ndeye Coumba Fall koo xam ne defaloo ko dara mu gis la li ngay liggéey mu rafetlu ko bëgg ko ba chaque animation chaque ngoon mu Saliou maa ngi lay bëggee bu baax a baax di nuyu waa Zik FM yëpp mais di nuyu tamit soppe yi nga xam ñu ngi gu taal ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Sofia xam nga Ndiogu Tall ak grand maam Gour Ndiaye depuis Ndondol Amina ñi ngi képp ku nga xam ne daal yaa ngi bëggee Babacar Babacar nga lay bëggee mais di nuyu tamit Elas bu jën Kayre ndax fii ma génn tey moom la kon Elas bu jën mention spéciale mi di nuyu tamit sama xarit dëkk Dakar Plateau ñoom Sidi Sall ak ki nga xam ne démb fa la ñu invité woon mu cérémonie ba ñu doon installé le général le commandant de de la gendarmerie yàlla tamit commandant boobu yàlla na ko yàlla dimbali ba li ñu ko jox mu def ci lu raw njortu ñu ko ko jox barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commandant wala le général boog Jean Baptistine. ba leen incha allah.